bismillahi rahmaani rahim tey dañuy wax aslëf ci diggante ak cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul ak cheikh sud al xaaji malik si xam nga ne ñoom ñaar amoon nañu relation bu dëgër a dëgër te lépp yàlla akuk bokk mbokkuk lislaam waral ko loolu tax na ba booy jàng minanul baaxil xadiim danga gis cheikh Mouhamadul Basir di nettali ne Serigne Touba jógoon na dem ziyaara ji Cheikh Sidi Hadji Malick Sy boobu mi ngi ko fekk ci dëkk bu ñuy wax Njaarnde ca Kajoor mu ne sax sax ab diir boo xam ne nag Euh, taxu koo yàgg waaye bi mu demee ba ñibbi Cheikh Sidi Hadji Malick Sy dafa war la wax dafa war xam naa booba fas lay doon dafa war aw fas gunge ko lu sori doog a wàññeeku loola di tekki ñoom ñaar soppante guñ soppante ba tax kii sol dàllam jóg dem ziyaara ji ko dem seeti ko kay itam ba mu ñibbi mu war aw fasam gunge ko mu nettali ba tey ne benn bis am na ku ñuy wax Muhammad ibnu Ahmad Ali Yaqub mooy kiñ ñu daan wooyee Muhammad Touba ab naar la woon mu ne mas naa dem Tiwaawoon ziyaara ji Cheikh Sidi Hadji Malick Sy te Muhammad moomu taalibeeb Sëñ Touba la woon bi mu ziyaara ji Cheikh Sidi Hadji Malick Sy ba koy tàggu Cheikh Sidi Hadji Malick xam ne Muhammad mii kat ci sëñ Tuubaa la jëm mu yóbbante ko moom sa sëñ xajma daal yóbbante Muhammad moomu ne ko maa ngi lay wax ay baat yoo xam ne dama la ko yóbbante ci sëñ Tuubaa soo demee nag ma ko nuyul te nag ma ko fàttalil suñ guddi ga ma moom ca Ndar ak panaan nga ma fanaan nga ma fanaanoo fanaan fanaanoon ak moom maak moom ñu bokk mel na fanaan ca ndar ci kër goo xam ne yàlla rek rek moo ñetteel soo demee nag mu fàttalil suñ guddi googee soo ko fàttalee ba mu fàttali ko ko na ko wax ne ko maa nga ca la ma diggante woon ak moom Muhammad nag nee na moom digg moom Seex Seex Xaaj Malik waxuma ko xawma luñ diggante woon waaye daal nee na daal boo génnee waxal sëñ Tuubaa ne ko suñu guddi gañ fanaan noonu ca ndar maak moom ci kër goo xam ne yàlla rek moo ñetteel maa nga ca la ma waxante woon ak moom neen loolu rek la wax yow yokku doolu ci dara neen ba ma agsee ci sëñ bi wax ko ko daal fàttali guddi ga mu daal fàttali ko ma wax ko li wax neen sëñ sëñ bi daal ciy bëgg lool daal may dëggal ne ma wax nga dëgg de waaw guddi ga de fàttewu ma ko neen daal wax ca Seydi Hajji Maalik lu lu lu rafet tagg ko tagg yu rafet rafet rafet nee na keroog kontaan ba sama nopp bi la jàpp di ko moqat ak sama bakkan bi di ko moqat di muuñ di ree di tagg sax si di xaaji kon loolu xewoon na seen diggante amoon na relation bu dëgër dëgër ba am na benn téere boo xam ne Cheikh Sidi Hadji malik mas na koo jox sëñ Touba addiya téere ba sax am na ñuy wax ne tafsirul jalaalayni la muy téere tafsir boo xam ne jalaal dinu suyuuti ak jalaal dinu maxalli ñoo ko def da ko jox sëñ Tuubaa ne boole ñaari bayit bayit yi mu wax ca ne ko hadiyatun mujibuha ijtilaabu mahabbatin yaa ayyuhal xubaabu adaama rabbuna lana xablal wisaal wa kaffana chara alladi aada wasaal ne ko maa ngi lay jox hadiya joo xam ne daal ak cofet rek moo ko lal yow mi nga xam ne kuñ bëgg nga maa ngi ñaan yàlla tam yàlla na saxal bu mu kóllëre suñ diggante te fegal ñu ayu képp koo xam dafay dafa noonoo mbaa muy rambaaje ba sëñ Tuubaa jotee addiyee ak bayit ya mu tontu ko yeneen ñaari bayit moom sëñ Tuubaa daal na sax si Haaji Malik jazaakumu xayrul jazal wahaabu wa fi safal widaadi laa tartaabu fa kayfa laa wal mustafal mujaabu imaamuna wal qitlu la nahaabu ne ko yàlla na la yàlla fay ngën ji fay yàlla miy maye yàlla na la fay ngën ji fay te nga xam ne it may itam sopp gu ma la sopp ak bëggante guñ bëggante ma ak yow moom bu ci sikki sàkka moom lu wér la lu leer la daanaka waa loolu sax nu mu mën a bañ a nekke maag yow nu ñuy mën a bañ a bëggantee te ki nga xam ne mooy Moustapha di yonte bi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu imaam maag yow ñu bokk jenn imaam bokk jenn diine bokk benn xibla bokk alxuraan bokk lislaam bokk luñ bëgg kon mënuñoo bañ a bëggante ne kon loolu mënut bañ a nekk daana ko nag wal xit la laa ne xaab rambaaji nag moom ñun faalewuñ leen duñ leen duñ leen ragal waaw rambaaj mënu ci ñun dara kenn mënu ñoo jaxase ma yow kon loolu xewoon na ci diggante Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Seydi Hadji Malick Sy diggante bu rattax diggante bu rafet boo xam ne lépp ak mbokkoog lislaam ak mbokk luñ bëgg rek moo ko moo ko waraloon moo ko laloon ku nekk la mu bëggaloon boppam moom la yéene woon moroomam mën naa am sax mu gën a mu gën a bëgg moroomam sax ci boppam boo koy xool loolu moo tax ba tax ba tax nga daan gis ko xam ne lay am lenn kese àddina ko jox moroomam toog da bëggante ak soppante loolu nag taaliba yi taaliba yi leen ci yi leen tuddoo war nañu roy ci loolu taaliba yi ak njaboot gi ñépp war nañu di fàttali ko loolu te di roy ci seen jaar ci seen tànk ya xam ne yàlla moo ne innamal mu'minuuna ixwa jullit yépp ay mbokk lañu rawatina ñu bokk mennum réew bokk lenn bokk sax ay maam bokk fu ñu dëkk bokk ay gox salaamaaleykum wa rahmatullah